ndax bi ñu leen woowee euh, ngir ngeen jàppale ñu pare nañu def ngeen ko ci anam yu mucc ayib ba ñu dem tey fi nga xamante ni mooy devant la commission de vérification des parrainages bi ñu demee ci commission boobu nag gis ngeen li nga xamante ni moom moo fa génnee waaw sunu borom defal ñu euh, ci tawféexam nga gis ne euh, liggéey bi ñu fa wane mucc na ayib ay jàmbaar dëgg ñoom ñoo ko def rawatina les coordination départementales des serviteurs rawatina les coordinations communale des serviteurs rawatina la diaspora def liggéey boo xamante ni bu bu am solo la ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ci kanamu commission de vérification des parrainages boobu nag ñu ne ñu nañu mottali fukki junni ak ñett la ñu war a wutaat ngir dolli ko ci ngir sunu candidature ñu mën ko gën a jëmmal bokk ci li nga xamante ni moom mooy élection du 25 février 2024 taxaw liggéey ngir soppi réew mi kon loolu yéen lañ ci bëgg a àndal njàmbaar gi nga xamante ni gis nañ ko ci yéen ak taxawaay bi nga xamante ni gis nañ ko ci yéen ak jéego yu dëgër yi ngeen dox depuis ñu tàmbali liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy defal Sénégal depuis le mille avril 2022 ak depuis le 6 mais bi nga xamante ni ci lañ déclaré sunu candidature ba tey ngeen taxaw temm daal di xam ne bii mooy la candidature de la jeunesse xam ne bii mooy la candidature bi nga xamante ni niñ koy waxee moom mooy dalal xelu euh, mag ñi waaye mooy dund laat yaakaaru ndaw ñi réew mi kat agence bi nga xamante ni moom mooy xayma ni nga xamante ni noonu lañ toll muy ANSD moom moo wax ne téeméer boo jël lu toll lu toll ci Euh, juróom-ñaar fukk wala lu ko ëpp sax fanweeri at ak juróom la ñu am wala sax lu toll ci juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël euh, daanaka ñoo ngi am euh, entre fukki at ak juróom-ñeent la ñu am ak fanweeri at ak ñeent kon réew moomu ndaw ñi buñ ko defarul xawma kañ lay baax ndaw ñi bu ñu taxawul taxawaay bi nga xamante ni woo moom la ñu war a taxaw réew mi liñ ci bëgg duñ ko mën a am te taxawaay boobu nag wane ngeen ko may tàllalaat suma loxo ndawu Sénégal yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew di tàllalaat sama loxo jigéenu Sénégal yépp yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew rawatina jigéenu serviteur ak ndawi serviteur yi nga xamante ni dañoo taxaw temm ngir soppi li nga xamante ni moom moo am nekk di xew ci biir Sénégal ba jural ñu li ngeen di gis tey mu métti trop ci désert bi jural ñu li ngeen di gis tamit mu métti trop ci sunuy morom ak sunuy rakk ak sunuy mag di faatu ci géej gi nga xam sunu géej gi yëpp léegi ay ay ay sëg loolu ngeen gis ne tey jii moom ngeen moo leen naqari ci suñu ressource naturelles yi loolu nga xamante ni moom moo leen naqari tey ci li nga xamante ni mooy or bi mooy phosphate bi mooy zircon bi mooy pétrole bi mooy gaz bi ak li nga xamante ni moom njàqare bi ngeen ci am te njàqare la boo xamante ni tamit mën nañ ko nangu lool ndax ku ndobin rey samaam boo gisee lu ñuul daw Senegal, du tay la am ay ressources yag na am ay ressources candidature bi nak dafa jog ngir safara lolu dañu jog ngir safara li nga xamanteni mom moy euh, jangoro yi dal askan wi dañu jog ngir choono yi jeex tak ci bir rew mi dañu jog ngir baykat yi ñu fonk len enfin té loolu dom baykat mo len koy wax dañu jog ngir nappkat yi ñu fonk len dañu jog ngir kat yi ñu fonk len nawlo len dimbali len taxawu len te loolu mooy candidature bi nga xamante ni moom la la coalition Papa Djibril Fall président daal di porté yéen lañ ci àndalaat ci li nekk ci sunu kanam ànd ko dox ko ànd ko wax ko ànd ko soppi réew mi maa ngi leen di gërëm bu baax leen sant jërë ngeen jëf alors asalaamaaleykum euh, mbokku Sénégal yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp maa ngi leen di nuyu euh, kenn ku ci nekk ci turam ak santam mag ak ndaw góor ak jigéen yëpp Euh, ñi nekk ci biir réew mi comme ni ma ko waxee léegi ak ñi nekk ci diaspora bi yépp di leen gërëm bu baax nag di leen sant donc par ma voix la coalition Papa Djibril Fall président moo ngi remercier de vive voix di sant bu wér a wér a yi ndax biñ leen woowee euh, ngir ngeen jàppale ñu pare nañu def ngeen ko ci anam yu mucc ayib

def liggey bo xamanteni bu bu am solo la ñu leen di sant di leen gërëm bu baax a baax baax ci kanamu commission de vérification des parrainages bobu nak ñu ne ñu nañu motali fukki junni ak ñett lañu wara wutaat ngir doli ko ci ngir sunu candidature ñu mën ko gëna jëmmal bokk ci li nga xamanteni mom moy élection du 25 février 2024 taxaw liggey ngir soppi réew mi kon lolu yen lañ ci bëgg andal njambar gi nga xamanteni gis nañ ko ci yeen ak taxawaay bi nga xamante ni gis nañ ko ci yéen ak jéego yu dëgër yi ngeen dox depuis ñu tàmbali liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy defal Sénégal depuis le 22 avril 2022 ak depuis le 6 mai bi nga xamante ni ci lañ déclaré sunu candidature ba tey ngeen taxaw temm daal di xam ne bii mooy la candidature de la jeunesse xam ne bii mooy la candidature bi nga xamante ni niñ koy waxee moom mooy dalal xelu euh, mag ñi waaye mooy dundalaat yaakaaru ndaw ñi réew mi kat agence bi nga xamante ni moom mooy xayma ni nga xamante ni noonu lañ toll muy ANSD moom moo wax ne téeméer boo jël lu toll lu toll ci euh, juróom-ñaar fukk wala lu ko ëpp sax fanweeri at juróom la ñu am wala sax lu toll ci juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël euh, daanaka ñoo ngi am Euh, entre fukki at ak juróom-ñeent la am ak fanweeri at ak ñeent kon réew moomu ndaw ñi buñ ko defarul xawma kañ lay baax ndaw ñi bu ñu taxawul taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu war a taxaw réew mi liñ ci bëgg duñ ko mën a am te taxawaay boobu nag wane ngeen ko may tàllalaat suma loxo ndawu Sénégal yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew di tàllalaat suma loxo jigéenu Sénégal yépp yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew rawatina jigéenu serviteur ak ndawi serviteur yi nga xamante ni dañoo taxaw temm ngir soppi li nga xamante ni moom moo am nekk di xew ci biir Sénégal ba jural ñu li ngeen di gis tey mu métti trop ci désert bi jural ñu li ngeen di gis tamit mu métti trop ci sunuy morom ak sunuy rakk ak sunuy mag di faatu ci géej gi nga xam suñ géej gi yëpp léegi ay ay ay sëg la loolu ngeen gis ne tey jii moom ngeen moo leen naqari ci suñu ressource naturelles yi loolu nga xamante ni moom moo leen naqari tey ci li nga xamante ni mooy or bi mooy phosphate bi mooy zircon bi mooy pétrole bi mooy gaz bi ak li nga xamante ni moom njàqare bi ngeen ci am te njaqare la boo xamante ni tamit mën nañ ko nangu lool ndax ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw Sénégal du tey la am ay ressource yàgg naa am ay ressources candidature bi nag dafa jóg ngir saafara loolu dañoo jóg ngir saafara li nga xamante ni moom mooy euh, jàngoro yi dal askan wi dañoo jóg ngir coono yi jeex takk ci biir réew mi dañoo jóg ngir baykat yi ñu fonk leen enfin te loolu doomu baykat moo leen koy wax dañoo jóg ngir nappkat yi ñu fonk leen dañoo jóg ngir sàmmkat yi ñu fonk leen nawloo leen dimbali leen taxawu leen te loolu mooy candidature bi nga xamante ni moom la la coalition Papa Djibril Fall président daal di porté yéen lañ ci àndalaat ci li nekk ci sunu kanam ànd ko dox ko ànd ko wax ko ànd ko soppi réew mi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf